ma ne amaana. waaw mais est-ce que yaay tuuti ak Pauline Thiam. en tout cas lu mu ci man ci doon yaay tuuti Pauline Thiam bu fekkee yéen ngi fii yéeg leen ci kaw tribune bi. en tout cas tey moo di borom arama nga ñoom rek. ca baa nga septième gaar. buga ngeen maa la buga man. <laughs> buga ngeen dañuy tey jii nag moom moo yéeg ci kaw tribune bi tey moom rek moo yéeg ci kaw tribune bi. léegi la. moom jiital gëm sa bopp. moom buga ngeen dañuy. borom arama nga ñoom rek. nee ba mi ngi septième gaar. nomination douze membres yu Sénat. Bougane Gueye Dany daf ci samp ay laaj nee si njekk rek nag si njekk rek xuloo ñu xëccoo ñu waaye si njekk yéen ñi nga xam ne yéenay boroom xam-xam yi ci wàllum yoon mais si njekk leeral leen ñu parce que dañu koy yittewoo danoo bëgg xam xëccoowuñu buuxanteew ñu mais dañuy laaj dong nag parce que nag nee nañ Abdoulaye Sylla mii membre bu conseil la conseil constitutionnel waaye yow sa mandat foofu jeexagul wala boog bu jeexee ñun xamuñu nan la jeexee ndax topp na yoon ni mu war a jeexee site bu conseil constitutionnel bi kenn publié wu ko ci waa léegi ñun est ce que mën nañ jàpp na jeex na ñu ne deete waaye beneen signature daal di lay fal ci Sénat bi yéenekaay bi bu gàngee dañu ci yéenekaay bi ne scandale la li scandale en tout cas moom loolu lay njort moom Bougane Gueye Dany nee na nag Bougane juge illégal le décret de Macky Sall il ne peut démissionner du Conseil constitutionnel sans suivre la procédure stricte prévue à l'article donc ou l'arrêté 5 de la loi organique booy démissionné ke dafa am yoon léegi est na yoon boobee en tout cas Bougane dafa njort ne respecté wu est-ce que démissionné na dafa njort ne démissionné wul est-ce que signature ci kaw signature mën naa am Bougane bu fekkee noonu la demee bie boo ñu xam ne tegu ko ci yoon yéen ñi ngay xam ne yéen borom xam-xam yi ci wàllum yoon la Bougane nee na ngeen leeral ko en bugaan parewul de mooy laaj ba tey de nee na 2017 Cheikh Awa Balla mii président bu mouvement de soutien TGV à Guédiawaye pour la réélection de Macky Sall en 2019 waa léegi Cheikh Awa Balla moomee nga xam ne ah moom mouvement de soutien la yoroon dem taxaw président Macky Sall ba mu am dem 2019 tey jii moom it bokk na si ñi ñu tànn ngir mu jiite Sénat. Sénat nag bu demee ba ne euh, commission nationale des élections autonomes. wala du autonome moo di koo xam ne ni mën naa demal boppam tëddee ñaaxaanaay donc ña fay liggéeyee amul warul am benn coloration politique en tout cas tëddee ñaaxaanaay la ñuy xaar si ñoom waaye Cheikh Awa Balla mii nga xam ne dafa coloré ci li ñu wax ci yéenekaay bi en tout cas 2017 dafa coloré woon xaw ma nag 2023 ndax coloration baa nga fa ba léegi <laughs> waaye lu mu ci mën di doon buggaan yow li nga xam mu mballu tey yow la ñu tànn waa léegi noo ma nekk juge et partie bugaan na yéen borom xam-xam yi leeral leen ma damay laaj rek de nee na si njekk rek. Mhm. moom jiital gëm sa bopp nee na si njekk rek damay laaj. dinañ si ñëwaat parce que kaay bi daal di dikk parce que nga xam ne. moom moo di sa jolof. mu ne ba ba ba jolof ma nee naan ku bënnoon teen ba. Mhm. ba jolof ma ne maree naan. Alburi Njaay. Alburi yàgg na ñooro. yàgg na ñooro. waaw waaye moo bënnoon teen wa. Alburi waa jolof bi sa naan. fu mu nekk nii nag. Alburi yàgg na ñooro. diggante. Aly Ngouille Ndiaye. ak Samba Ndiobène dañuy xool kan moo téye jolof daf na teen ba nga xam ne Alburi moo ko bëndoon ana kan moo koy gérer fu mu nekk nii sa sa jolof hmm? diggante Samba Ndiobène Kam yi ak Aly Ngouille Ndiaye kan moo téye jolof en tout cas fantasiro la de fasante sikkim est-ce yegg nañ ci fasante sikkim amuñu ko de ñoom ñaar ñëpp ñu ngay yóbbante ay kurpeñ xamuñu ko te ñoom ñaañu amuñu ay sikkim déjà <laughs> kenn ki oolaan comme man donc buddi buddinte kii la parce <laughs> buddinte ay noonu <laughs> en tout cas ñoom ñaar ña ngay xëccoo sa jolof nekk nii entre Aly Ngouille Ndiaye ak Samba Ndiobène Ka li ci kanam raw ñu gët ñoo ngi toog di xaar seizième édition bu FOGECA nee naa la dénk des médias événement boo ko dénkul yàq nga ko yàq nga ko yee nga laaj Amadou Diagne mii mhm. président bu FOGECA mhm. forum ba am na njariñ waxtaane nañ fa ndaw ñi ndaw ñi place bi ñu am ci Afrique mhm. mais également ni ñu war a def ba téye leen dëgg la bu loolu weesoo ñu ne nag wax fa dëgg ne engagement bi nga xam ne le POGECA ka préconise un engagement euh, résolu du secteur privé et des acteurs politiques en faveur de l'intégration africaine. c'est important am loolu yëpp jot nañu ko fa waxtaanee. réew Afrique yi. il faut une intégration. il faut ku si nekk dugal ci loxoom il faut une intégration. te muy dëgg. il faut ñu dugal ci ku si nekk dugal loxoom. dama ko mos a wax fii ma ne Afrique dafa war a delloo ci troc mais modernisé. ñoom ñu ko defee ñuy lëkkaloonte ci suñuy biir am nu ñuy weccante ci suñu ay biens ba tax ñu mën a suqalikoo sans sax. en tout loolu moo waroon tax a jóg normalement CEDEAO ak UEMOA mais malheureusement gis nañ ni muy dox y a la CEDEAO des des militaires de des putschistes. <laughs> des putschistes et la CEDEAO des waaw. Ah, ñaari CEDEAO est-ce que du ñu. CEDEAO civil militaire. militaire. et ces solutions là ils le savent mieux que nous mais pourquoi ce n'est pas appliqué. malheureusement FOGECA lépp waxtaanee nañ ko foofu. mais l'ennemi de l'Afrique c'est l'Afrique. Euh, Alpha Blondy moo ko wax. tragique accident entre Bambilor ak Noflaye ndeysaan ma leen di jaale parce que daanaka. Euh, ñoo xam ne ñoo bokk famille ñoo ci faatu si accident boobu. nekk si benn famille. donc euh, waa Bargny également ma leen di jaale parce que dafa am gaal gu demoon ñu ne ci biir bi am na treize yu xam ñu ci bëri ñoo donc. mooy euh, ñi ñu gisee Mauritanie ñi ñu. am na ah waaw waaw Mauritanie metti na metti na euh, euh, yéeme na. donc gaal gi mais tereew nit ñaa ngi jël gaal ba léegi nañ ci bàyyi nañ ci bàyyi xel bu ñu ko mënee teg ci suuf en tout cas moom mooy li li li gën grand place. Euh, daal di ñëw ci juge euh, donc jugeant le décret de leur nomination illégale Bougane récuse les nouveaux membres de euh, la Sénat en tout cas moom wax nañ li nga xam ne moom la moo ko ci nekk ki nga xam ne mooy Abdoulaye Sylla mënoo nekk membre conseil constitutionnel ba noppi xamaguñu ndax jóge nga fa wala déet en tout cas ma ñam parce que ma dama dëgg par exemple man ñi la <laughs> man man li baax na ñu ah. lépp la nag da ngeen koy comprendre rek chef baal ñu rek nii la rek. dañuy ma gisee damaa bëgg lu neex boobu. damaa bëgg lu neex yow xam nga loolu damaa ah. bëgg lu neex. Mhm. voilà en tout cas. Euh, waa grand place euh, kii nga xam ne moom mooy bëgg nee nee na Cheikh Awa Balla nii borom TGV. Mhm. Mhm. ndax TGV boobu la àndaale. ci Sénat bi wala déet. waaw TGV bi moo ko andi ci Sénat bi wala déet. wala TER la jël. ah lu mu ci manti doon nee nañ ko da ngaa coloré. wala wala wala uppuyaa uppuyaa. waaw uppuyaa it mën na ne. wala BRT bi war a tàmbali. moom la jël mu andi ko ci Sénat bi am déet kenn xamul. Bougane nee na damay laaj rek. ndax koo xam ne da nga coloré am nga place Sénat wala déet nee na Abdoulaye euh, Sylla bu fekkee yow yaa ngi conseil constitutionnel amoo place ci fii nga xam ne moom moo di ci euh, Sénat bi. Mm-hmm. en tout cas nee na yéen borom xam-xam. ci wàllum yoon parce que foofu quand même soxla nañu. neutralité. neutralité nee nañ la leen bañ a voilà Omar Boun Khattab Silla <laughs> détruit ses détracteurs et assume bilan. ñun nee nañ Dakar Dem Dikk daanaka amatul benn benn benn mhm. da ngay toog ci arrêt bi ba sonn doo gis dara. Mhm. Dakar dematul dikkutu waaye moom nee na loolu ay wax la de ay dóor. Dakar dem des tontu na leen de. ah mais y a ah, en tout cas tontu na leen tontu na leen de moom borom dak <laughs> Karim <laughs> élection présidentielle du 25 février l'honorable député Mame Diarra Fam maa ngi lay nuyu Karim Meïssa Wade ngi nii. maman maa ngi lay nuyu. <laughs> Adja Fatou Sow Karim Meïssa Wade ngi waree Wade Sarr Tox Zalda Niang. seen candidat ngi na ñëw nag. l'absent le plus présent Adama l'absent le plus présent non Adama. David Niang Adama David Niang. te ngeen moom. mi ngi nii Adama David Niang. moom lañ nee na nee moom rek la ñuy topp de waaye nag boo fa dëgg ki ngay topp te gisoo ko moom dana doy waat torop. ñoo ngi présenté aussi suñu condoléances au maire Obama de Mbao pour accident yi am fële ca Niayes. Ah, waaw maire Obama ñu koy ñu koy ñu koy nuyu bu baax. ah j'adore la photo de. de waaw ñu koy nuyu waaw ah, mi ngi nii waaw photo baa ngi nii. <laughs> ci euh, nga xam ne mooy Ismaïla Madior Fall nee na dafa rehausser diplomatie Sénégal la diplomatie sénégalaise sa Yaoundé bu fekkee rehausser na ko de ci kaw Bougane Gueye Dany tontu na ko ci suuf. parce que moom Ismaïla Madior Fall dafa tontu Ndiaga Sylla ci kaw. Hmm. Bougane nag ne ko nañ ko maire Binta Faye rek ci suuf <coughs> ndax nag li nga war a tontu des na fi. moo di bu fekkee borom xam-xam nga nee na dafa bëri ay erreur ci doxalinu président Macky Sall. ba noppi borom xam-xam yi les juristes nañu andi ay leeral. ci nomination yi bees si nga xam ne moo am euh, ci euh, euh, Sénat bi na leer en tout cas moom loolu la bëgg ñu àndil ko ci ay ay leeral moom Bougane Gueye Dany l'évidence daal di dikk ci Pape Demba bi tey ca Kaolack en tout cas mu ngay gën di imposer wu de di wane boppam l'exclusif daal di si dikk week-end politique à Kolda sargal président Macky Sall sa Fatick ak ki nga xam ne moom mooy Thérèse Faye yéenekaay bi daal di say wax lii quotidien andi Cheikh Omar Anne ba nga xam ne ma ngay menacer jàngalekat yi journée morte la bëgg a woote maanaam journée boo xam ne école du ubbi day tëj école kañ la ubbi ak kañ lañ ko bëgg a tëjaat barke day mooy jaay la ubbi léegi ñu bëgg koo tëjaat suba mardi. journée morte en tout cas ces appels déguisés à la grève sont contraires à la réglementation ceux qui cessent le travail peuvent immédiatement subir des sanctions sans garantie à bon entendeur. saluté. Bougane Gueye dañuy exige des éclairages nee na yéen borom xam-xam yi leeral leen ñu en tout cas ñun loolu rek la ñu bëgg na leer rek eh, Bougane bëggul lëndëm na leer. nay leer. loolu la woote nee na Bougane bëggul lëndëm na leer comme ñun nag wax fa dëgg yàlla ku fi woon nay leer sax Fatala Ndiaye na lay leer loo waxati na lay leer Bougane nee fii ci réew mi de <laughs> opposition bi bii ba nga xam ne loolu leen song rek nay leer eh, nomination wal foofu la dikk. ah Modou Lo contre euh, euh contre Cogne et Gagne ndeysaan le plan B en gestion en gestation euh, waa euh, Pastef fu mu nekk nii nag nee nañ ñu ngi yëngal xool kan mooy nekk plan B ñoom la nee nañu am ñu A B C D benn plan la ñu am mu di Ousmane Sonko mais nag fu mu nekk yéen bi di wal fu nee na le plan B en gestation coloration politique et cumul de mandat nomination polémique à la Sénat yéen kaay bi daal na ciy dikk l'observateur ne loi incolore en lo donc incolore donc Modou Lo. Mhm. incolore inodore et sans saveur. war na boppam ki nga xam ne mooy amaa Baldé. ñi watoon seen bopp fu mu nekk dara bi muy ñëw. bu ñëw xool takkul dara man loolu ma jaax dama gis Modou Lo. yaram bi set wecc gémb kase. da kaa bëgg a wane mais Ama Ama lépp la takk. lii mooy maanaam sotteeku na guux na. waaw na. def na lépp laalaay si sax maa ngi koy gis mu def si poste mu ne lii lan leen benn jàngat la war a kii takku ba fees ak kii takku dara. loolu mooy xaar fa fajul dara te ngemb bi jaarul sax 1000 francs Modou Lo pour mi doole la kattan la. dem laaj ko waa Fandène. du xar fa xuufa de. Ah, aywa waa Fandène ah. Mm, waaw donc leur grève. bàyyi nañu grève bi ñoom ma ici. waaw euh, ñoom en tout cas concessionnaire. concessionnaire waaw nee nañ waxtaan am na. liggéey rek ah bu ah, Sonaged la mm. waxtaan am na déggoo yaakaar nañ ne kon dana am waaye nag déggoo amagul de ci diggante ministre bi ñu dénk wàllum jàng mi ak syndicaliste yi maanaam SAEMS CUSEMS ñay daan xaap nee nañ leen nag boo leen demee grève yee boo ngeen xam ne yat bi mën na leen dal. Oja lu ma wax ma ah Oja ñu dem ci Oja. Mm-hmm. pourtant mën nga ñëw fii de. ñëwoon waaw ñu dem benn rek après. point actualisé point actu dafa ñëw. Euh, ci à qui profite le report de l' élection. en tout cas le choix contesté de de Macky Sall ak jàngat la est ce que ñoom. nii ñu reporter élection yi du leen arrangé ndax déjà ñoom dañu am problème mu candidat profil Sonko arrêté et radié des listes électorales Pastef dissous est-ce que ñoom it élection bu amee fi dinañ mën a bokk am déet loolu la euh, Karim Wade incertain avec son amende euh, de 138 milliards est-ce que ñoom instant bi pare nañu pour dem élection à 138 milliards yéen i xaar Barthélémy Dias épée de Damoclès d'une décision de justice waaye Bougane Gueye Dany désavantage euh, désavantage donc lan moo waral loolu parce que Bougane kat nee nañu ak ah, lii nga xam ne moom la liggéey ba toll fi mu toll nii lii nga xam ne peut-être def na ko ci terrain bi ñaata ak lépp mille présidentielle 2024 tey jii mu war a toll ci wan ne moom mooy chef de l'opposition